n'existe pas les hip hopers à part ah et les littéraires de l'autre côté. Les gens doivent être ensemble parce que mhm. chaque jour ça ne me indi pas. livre indi a dara livres, jox ma ma si quoi vraiment je je je vous remercie pour ça parce que bés bu nekk mu texte me lire quoi et je trouve peut-être ça m'enrichit merci également d'avoir pensé à avoir comme thème euh, l'histoire du hip-hop globalement parce que ñun moo ñu tàggat moo ñu def lu ñu doon moo tax ñu wóolu suñu bopp tey mais dama dellu tuuti balaa may dugg ci vifu Cissé bi dama bëggoon ñett yokk ñett yi Paco omettre représente wax na ko mais tudd ko parce que nee na citoyenneté représente c'est très important moom mooy parce que rapport yi njëkk yi saa yu ñëwee ji naan représente jiwey ñoom ngaa ko ñoo naan jiwey undershift doon wax représente waay géej ñu ne représente Daf Guéro c'est important mooy représenté teewal sa gox donc fi nga dëkk da koy représenté le hip-hopeur c'est comme un homme politique c'est comme Balla Gaye et Guédiawaye buy bëre tey Guédiawaye yëpp ñooy jóg le hip-hopeur c'est d'abord ça après mu ne reconnaissance recognize mooy nangu c'est important nangu fekk ni ñi fi jiitu am na liñ fi ji am na luñ fi fekk loolu ci lañ sukkandiku pour mën a continuer liggéey bi mais après mu respect moi, buñu respecter respecté wul ñi fi jitu ñi sos affaire bi ñun parce que lu amul histoire lu amul passé du am présent té lu amul présent kenn du du am futur du am ëlëk mom motax en fait c'est interdépendant et complémentaire dañuy mottalante beneen aspect bi ma bëggone yok moy lien bi ak livre mouvement hip hop euh, la littérature en général vous avez le classicisme vous avez le romantisme le naturalisme le surréalisme le symbolisme effectivement dans le hip-hop c'est également comme ça c'est des courants c'est des courants Si pas ne man de Ghetto tout forcément Tout le monde yor fay relation ak Pat texte bi muy bind am relation ak am relation effectivement ak li nga xamantene moy environnement exemple bi buñ Fou Malade ñu né lan groupe ñu né bataillon blindé bataillon moy assemblée des hommes à battu ligoté par l'injuste nation donc lien bi ak Fou Malade mooy c'est un marginal beneen tour bi fàqman la dafay am lien mu ngi mel na nga ne grave diggers grave diggers mooy gaskatu kàmbu néew yi gaskatu bàmmeel yi waaw ci biir grave diggers dafa am ku ci tudd de resurrecto maanaam dekkil kiy dekkilaate pour wax leen ni c'est très lié rappeurs yi judduwuñu rek for tur nii rek quoi ne damay tudd damay yeewu rek tudd nangam donc tur bi ñuy tudd dafay am lien ak seen koñ am lien ak seen histoire pour mën a jox nekk ci benn environnement tey bu ñuy màndarga tey ci hip bi ñoom Awadi Positive Black Soul buñ koy comparer tey dans la littérature Senghor lañ koy comparer parce que ñoom seen groupe mu ngi tudd positivité de l'âme noire âme noire positive donc seen combat moom moo nekkoon la réhabilitation de l'identité culturelle nègre c'était des chantres du mouvement de la négritude mais à travers le hip-hop nga jël Fou Malade mu nekk un symboliste mun nga ko comparer ak Charles Baudelaire wala nga comparer ko ak Paul Verlaine et cetera et cetera donc lien yooyu moo am mu nekk tey ay courant la tey ñun suñu courant symbolisme la mais tey ñoom courant ñoom diib ñoom ngaaka ak nouvelle génération bi c'est la célébration donc ni nga amee le gangster rap am le rap hardcore am le rap am am le rap horrorcore am le rap underground ci ngay am également le dirty south am après le trap te bu ci nekk dafa am histoire am nouvelle damay dellu si nouvelle génération pourquoi ñoom Lil Wayne bi ñëwee teg trap na dañuy dirty south dañuy trap parce que dañ ne old school bi ñi fi jiitu liggéey nañ lépp kaas nañu foog nañ système bi ay public enemy na nañ don't believe de hype bu leen gëm nax yi et cetera assise politique bi jox nañ ko hip hop maintenant comme que ñun ñu ngi fi bopp ba léegi nit ñu ñuul ñi ñu ngi fi bopp ba léegi dañuy celebrate celebrate maanaam mooy dañuy bége dafay dellu ci li Paco wax peace love unity and having fun mooy dañuy bége donc bége kenn terewu ko ci hip hop daf ci fondamental parce que biñ koy sos dañ Non la soso et le premier texte hip hop n'a pas parlé de politique le premier texte hip hop mu ngi wax dama kontaan sama gel mo gën a sa gel ma la gën rafet yere. man gel yi man la ñuy donc c'est important et le lien avec Tassou, moi xam nga lan tay bo démé fi rap judo fi ñu njëkk a esclave esclaves mu ngi tuddu New Orleans la Nouvelle-Orléans boo demee Nouvelle-Orléans ah, da fay fekk lu ñu lu ñu tuddee French Market yàlla dimbale na ma ma dem fa le marché français mu ngi nekk ci Bourbon Street am feneen fu ñuy wax Congo Square bu esclave yi demoon tool ba pare foofu la ñuy daje di tëgg ay jëmbe di woy ñiy fecc di fecc li ñuy woowee de bamboula dance loolu nag mooy yóbbaale wu ñu oto yóbbaale wu ñu kër yóbbaale wu ñu yére mais yóbbaale wu ñu aada ak cosaan yóbbaale nañ aada ak cosaan loolu moom moo tax rab jege lool ak li ngay dégg ci taasu taasu da nga siy dégg lu ñaaw rab danga nga ciy dégg lu ñaaw boo demee tey xaxar dinga dégg liy ñuul coq la li ci digg bi tàndarma la loolu taasoo ko wax waxuma ko bayal tool bi sa tool bayal tool bi sa tool la donc loolu on le tey ah waaw ay yooyu yëpp yu ñuy dégg la donc cosaan la beneen affaire même dans la forme ah sama dooley sama xarit su ma jàqee ba làmb ko sama xel dal mbër yee koy wax mais c'est de l'ego tripping ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne vraiment yooyu dama bëggoon juste compléter les ressemblances ak ak ak rencontre similitudes di am entre rap rap moo tax ñun bi ñu ñëwee moo tax américains yi ils sont très intelligents dañ ko tuddee resurrection of African poetry renaissance of African poetry moo naan maanaam juddu judduwaatu poésie africaine juddu wat parce que biñ len fa yobbo téré len lepp xagn len lepp xagn len alal xagn len lu ne mais dañu yóbbaale sen culture et on sait que la culture c'est le véhicule moy li ëpp solo motax tax bu lay coloniser limuy ñëk def moy daf lay fekk ngay lekkee leket mu ne la kaay lekkee kuddu gens ci table la ensemble donc la culture est vraiment importante et fondamentale C'est tax sampal ay pour indi lien en 1988 Rabbi en 2018 la a 30 ans il di a Afrique culture urbaine C'est xalaat célébration hip hop 30 ans ou hip hop donc 88 faut coïncider en 1997 en 1987 Thomas Sankara nous été assassiné moment Bobu, ci la ñom awadi di djok mu tomber fi Sénégal ak année blanche année blanche Bobu, ndaw ñi amuñu fuñu ñu jëm tombeek Abdou Diouf di tuddee jeunesse bi jeunesse malsaine am en fait amul ben alternative njàng mi doxul bobu système double flux euh, flux bi ci la commencé et cetera et cetera bi loolu waaw euh, plan d'ajustement structurel bi loolu ñëwé rappeur le mouvement hip-hop nek ben ben ben cadre pour accueillir jeunes parce que ci lañuy ñuy sen seen xalaat ci mu tomber nak Thomas Sankara ñëw ak ay idée bi Thomas Sankara ñëwee tout de suite motax awadi sax tudé bopam euh, tudé sen studio studio Sankara bi ñu ñëwee fofu ñom awadi ci liñ mënon taxaw moom moy en fait nek di taxawal euh, nek di taxawal par exemple di di xeex affaireu Afrique moom moo ay ñoom awadi boo la plupart le cœur de leur texte c'était l'Afrique après ci jamono jooju moo c'est très important tour tey xëy ci la xale yi dul réfléchir ñoom Positive Black Soul tudd euh, euh, am posi am am noir positive ñoom rapajo ñëw ñuul te rapajo donc la question black la question de la couleur de la peau et de l'identité nègre toujours fait génnaat amoon yenen groupe yu tudd amoon nañ ay sup ay suprême black ñu am pifras phrase phrase xam ngeen moy lan pi mooy diminute p ñaari e mooy diminutif u possi phrase moy front révolutionnaire organisé pour l'instauration d'un système sain donc gars buñ doon créer sen groupe dafa doon am un contenu politique daara ji ñëw tudd daara ji c'est-à-dire l'école de la vie Hein. ñu am ay coach Barma toujours la référence à l'identité à la question identitaire ñu am ay black mbooloo ñu am ay jant bi et cetera et cetera et cetera léegi yooyu bi mu ñëwee ba jusqu'en ba ba en ba ba bi ñuy ñëw 2000 fekk albumu Rapadio génn na compilation Dekil Rap génn na compilation politicien génn na mu nekk outil yi nga xamante ne ndaw ñi boobu ndaw ñi tàggoo nañu ak livre parce que nekkatul outil bi nga xamante mo meuna wax ak ñom rap, juddu ñuy déglu rap, di ci yek sen bop rappeurs yi profito ci di wax ak gaay donc ça a été un espace les concerts ont été presque des espaces de mobilisation et de conscientisation de communication jeunesse bi di ci am ay outils politiques di ci am ay outils politiques di ci am ay outils politiques ñun je me rappelle en bi créer suñu groupe ba dans les années 98 pour rompre avec li nga xamante fi am parce que groupe bu fait da ngay bëgg ñu nous avons ñu créer bataillon blindé Nous, ne ñun va pas faire du hardcore parce que on avait constaté que le rap sénégalais était un peu américain Nous, ne rap bi signifie signifié wul si ñun resurrection of African poetry parce que nous, on n'est pas des américains pour le rap est un à adunay puukare tourner le dos aux mondanités manam, faire rap tagat ñu hier ñu ba def si ñun humilité ba wan ñu aduna ñu ci toroxlu comme Baye Fall buy tarbiyu comme Baye Fall bu nek ci tarbiya comme Baye Fall bu nek dara laxasaayu tak laxasaayu et cetera et cetera fay geddu yu bari c'est-à-dire lepp luy neex ci aduna daf koy ber ñu dugg ci concept yoy loolu mo ñu duggal ci ay Fou Malade et le lien avec la citoyenneté est effectivement là parce que le hip-hop est avant tout un mouvement social parce que c'est quelque chose qui qui tire son inspiration de la rue le hip-hop sans la rue n'est pas le hip-hop donc bu ñuy wax mbedd ci hip-hop mbedd mooy ndox ndox ci garab c'est-à-dire ci hip-hop c'est-à-dire mooy tax garab gi dund rappeur boo gis amul trajectoire ñu ne la rappeur bi dafa jékki-jékki rek siw du yag ci scène bi pourquoi parce que amul jaalan yor ay millions jox ko mu defi album def na ay vidéo yu jar ay millions def ci xaalis albumam ay ngandi producteur gen mais hip hop bi nanguwu lan motax hip hop bi nanguwu ko parce que hip hop bi remarqué wul benn yoon jaar-jaaram maanaam mbootu tarbiya bi mbotu dox bi mbotu nixma bi c'est important nixma dans le hip hop c'est très important moom motax toujours boy yi ñew si ñun fi nan way grand japp ci suñu grand mais may ñu ki ñu enregistrer on leur dit effectivement il faut faire le chemin qu'il faut faire parce que ci ngeen di tagat sen bop donc hip hop man li tax may contane vraiment en parlant du hip-hop parce que man bi ma décidé en 2000 di di 2002 fait que ngi année de licence man ak sama yaay ñu am si waxtaan bu xóot mu ne Malal est-ce que yow li ngay li ngay li nga nekk di def ni aduna dina la ci fonk est-ce que di ci est-ce que say nawle dinañ la respecter ma ko yaay li may def ni ci lay waxale sama askan mais li may def ni aussi meuna ci jënd ceeb mën naa ci jënd diwlin ci jënd album ah, c'était à en juillet 2003 août 2000 août 2003 lañ album boobu génnee album sama yaay na kon kon 2003 album décembre 2003 décédé donc en fait mu elle voulait s'assurer ndax ci li ma nekk mun naa cee dund mun naa cee assurer samay arrière ba dem te li ñuy kontaan loo tey mooy ñun fii lañ tàmbalee fii mbaar bi c'est très symbolique pour nous ñu fiy ñëw di buuxanteeg Bakary entre 300 entre 200 et cetera di ñafe di ñafe di ñafe moo tax bi ñu yàlla dimbalee ñu am tur ñu ak ñoom Malick ak ñoom Paco ñu dajaloo pour tabax lii mu nekk benn bërëb bi nga xamante ne dañ koy delloowaat communauté bi parce que hip hop ci ay téeréem dafa jàngale ni boo demee ba nekk dara ba représenté sa gox ba nekk dara da ngay delloowaat communauté bi nga xamante ne moom moo la yëkkati supporté la ba nit ñi ne wëy yow la da nga leen war a delloowaat donc jërëjëfe hip hop merci beaucoup ni la référence à l'identité africaine ñun suñu groupe mu ngi njëkk a tudd African Black Roots waaw gis nga ah, parce que pour wax la ni la préoccupation de la réhabilitation de l'identité africaine dafa mus a nekk fii boobu sama xarit xool ma pekos nijaayu xaw amna boy bu fi tok parce que ndax sama gataay mais en même temps je ne tank moy également ndali moy ci la nit ñi source de vie etc. etc mais également la personne à la petite taille etc. on peut être petit par la taille mais grand par l'esprit mom moma ma tour bobu suñu groupe amone ay kuruma ay